ci tawaay bi nga xamante ni daayira Muxaddamatul Xidma baaxoon na ko ànd ak yéen ci xew-xew diine yi rawatina buñ tolloo ci weeru sel yi nga xam moo di weeru safar ñu ci ànd ak mbooleem jullit yëpp fu ñu mën nekk ci àddina rawatina taalibe Serigne sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba ci ndigalu Cheikh Mahmadul Muntaxa dellusiwaat nañ ngir am jotaay yoo xamante nii dañ koy saf ci yi nga xam moo jàlloon bu jotaay yoo am solo yoo xamante am ñu koy fekk si fii ci jumaa ji li ëpp ci mbokk yi itam ñu koy topp fu ñu mën nekk ci àddina muy taxawaay bu solo boo xamante ni ñi koy rafetlu bari nañ bu baax a baax ci biir lool nag tey ñëwati nañ indiwaat beneen jëm beneen kilifa ci ñi nga xam ne ràññee nañ leen ci Touba ngir mu indi tom bu am solo boo xamante mën na koo waxtaane te mu méngu ak jamono muy Serigne Cheikh Mbacke ñaa nekk ki nga xamante ni moo di ginnaaw bi nga xam nekk na ci dëkk bi jaar fi ñuy jaarale gaa yu baax yi nekk kilifa ci dëkk bi jàngi fi Alxuraan boo xam lim ci war a xam soobu ci njàngum xam-xam boo xam lim ci war a xam ba jamono yi nga xam ne fi laay wax ak yéen ab inspecteur éducation la di mu fàttisu euh, boo xamante ni mu ngi jàngale ci mu ngi tàggat ay jàngalekat di saytu walum jàng ak jàngale waaye itam yàlla defal ko tawféex barab bii nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha defar na ko muy complexe bi mu bokk ci ñi nga xamante ni bokk na ñuy taxawu ña nga xam ñoo fi ne ñoo fa nekk te ñu yëngu ci wàllu xam-xam bokk itam ci daara bu am solo bi nga xamante ni mooy Rawdu Rayaahiin nga xamante ni luy xeeti xam-xam rek ci wàllu mouridisme mel na ni naw lañ leen ci bu baax a baax ak ci yeneen yëngu yoo xam mu ngi koy def ci ay waxtaanu diine wala ay conférence wala ay gëstu yoo xamante ni mu ngi koy def rawat na ci li nga xam ne wala murit gi ak yeneen yoo xam ne jëmbul sax nekk bu ñu fi nekkoon di di ko lim mën nañu fee xaw a yaatal ci kaddu mel na ni bu àddu rek mën nees sañ koo xam bu baax a baax waaye mu fas yéene waxtaan lu am solo tom am solo boo xamante ni mel na ni waxtu yu toll nii waxtaane ko mën nañ cee génne a ginde ko gën cee jàng yu bëree bëri muy lan muy orma yi nga xam ne moom la war a jox dëkk bi ak jafe-jafe yi nga xam ne seenu nañ ne jombul buñ ci teelu jóg mën na cee mën na ci agsi yooyu nag fas na ko yéene mm, séddale ko ci ñeenti tomb benn bi mooy jamono yi nga xam ne sos nañ Tuubaa te loolu mën naa yaatu bu baax a baax nag te nga xamante ni balaa ñuy dugg ci biir mawduu bi nga mu leeral yaatal ba ñu xam sosug Touba nan la nan la bindoo waaye itam euh, barab bi nga xam ne wala wàccuwaay bi nga xam ne tuubaa am na ko biñ ko sosee ak ñi nga xamante ñoo fi ñoo fi ne ndax barab biñ ko sosee ba noppi am na ñu fi ñu fi dëkk bu fii ñuy wax ak yéen am na ñu fi dëkk ñoo itam dina ci am pàcc bu yaatu bu mu ci mën a leeral waaye itam ormal Touba itam xorom bi maanaam jëmm dëkk bi loolu dafa am wàccuwaay bu mu laaj loolu tam na ci yaatal bu baax a baax doog a ñëw nag ci nga xam ne seenu nañ ñi buñ ci taxawul mën na am jamono mën na ci indi ak coppeeku mooy ay jafe-jafe ay tax taxadiyaat ay gàllankoor yoo xam ne jombul mën na cee kii yii ak yeneen jombul buñ ko joxee kàddu gi dina leeral leeral goo xamante ni dina gën a faram-fàccee yii ma wax ni yëpp gën koo leeral gën koo faram-fàccee bu baax a baax kon nag xanaan ñu ñaanal ko su borom subhaanahu wa mu fecci aw ubbi dënam yaatal ko bu baax a baax ba li nga xam ne moom la daayira bi séenu ci moom te yaakal ko ci moom te moo yàgg di ko taxawee te yàgg di ko def moo mën koo defee na nga xam ne ko daal defee incha fa si Cheikh fale tafadal mashkura ok jëf ci kàddu yi ñoo ngi lay delloo nuyoo <coughs> di nuyu it ñi fi nekk ak ñii ànd ak ñun jotaay bi ci nekkuñ fii di leen ziyaare bu baax a baax ci weeru tedd wii ñu nekk di weeru màggal di leen ndokkeel ci bis bi ñu dëgmal di ñaan yàlla ñu egg ci ci sago ci jàmm ak salaam akuk tal ba man koo dundale ni ko borom bëggee woon te ñu am ci ngërëmam te weesu ko ci jàmm fekkewaat ko yaati at yooyu yëpp nag ñu ciy jiital Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mi nga xam ni mooy kilifa yoonu murit di ko ñaanal gudd fan lool te ànd ak wér ba naal yëpp egg ci naalam yëpp egg ci sago te mu ànd kook mboolem taalibe yi di rafetlu jotaay yi ngeen di amal waa Muqaddamatul ma di ko dugal ci biir waajtaayu màggal gi lu ama ama am solo ndax dafay ubbi xel yi di yee nit ñi nga xamante ni ñi ngi fi ak ñi war a ñëw euh, ci ban taxawaay lañ war a am ci màggal gi ak ci dëkk bi looloo tax xam naa ngeen tam tànn tomb yu am solo Euh, bokk na ci bii ñu nar a waxtaane muy lu jëm ci Touba wàccuwaay bi mu am ci sëriñ bi ak ci taalibe yi ak ban worma lañ ko war a jox mooy tomb yooyu nga tuddoon ñuy am mbégte bu baax baax nag di ko bokk ak yéen jotaay bi euh, waaw tomb bi noonu la demee Touba euh, ci li ñuy waxtaan waaye liñ war a jàpp ci tàmbali bi mooy ni kilifa gu nekk bu amee programme walla xalaat bu mu bëgg euh, doxal ci askan wi dafay laaj mu am kilifteef ci ñoom waaye dafay laaj barab ba mu nekk lu fa ay gàllankoor gën a rekk moo gën ca loolu la ca jiitu mooy mu yilif barab booba ci noonu la cheikhul xadim radiyallahu anhu daa wër di sanc ay barab ba mu ni mu sanc tuubaa gi ca laat laataa mu koy sanc sancoon na beneen dëkk muy daaru salaam waaye tuuti la fa nekk rek daal di toxu si fii loolu lépp nag lim mu bëggoon loolu lépp nag li ci bëggoon mooy am fu mën a féexe am fu yilife eh, barab ba ay sañ-sañam war faa mën a dox ba euh, euh, naal bi mu am mu mën koo sottal ci noonu la sañca Touba euh, ci ndigalu sunu boroom ak ci tànneefam loolu it moo ko waxal boppam bi mu fiy ñëwit dabu suuf su baax wala fuñ mën a sàmme wala dundal ndonoy ay maam ak i bàyyi yooyu yëpp benn taxutoon mu jóg waaye fu féex fu néew ay gàllankoor foo xam ne dana fa mën a wéetale sunu borom man ko faa jaamoo ci anam bu rafet waaye man faa yar tàggat jàngal ñim àndaloon looloo tax mu sanc Touba ci atum cent 1306 muy atum junni ak ñetti téeméer ak juróom benn ci gàddaay ak bi alayhi salaatu wasalaam dëppook atum junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett muy 1888 am na ñoo xam dañuy wax 1889 ci yéene jooju ñu wax loolu bi mu fi ñëwee mu mel ne bég na ci lool sant ci yàlla bu baaxit bokk na ci li mu ko wax yow sama borom wamman nga ma indi ma ci suuf si nga xamante ni yaa ma ko tànnal ma tabax fi ma taxawal fi ñaari kër benn bi ma tuddee ko Daaru bi ci des ma tudde ko Touba ngir ma jaamu la fi rek nag moo tax ci ñaari barab yooyu jaamu la rek moo tax ma sanc leen jaamu goo xam day day am cëslaayul ngëm yàlla mooy bil imaani ak al islaam wal ihsaan ak rafetal lépp looy def loolu nag maa ngi lay ñaan ñaari barab yooyu ñu mucc ci lépp luy gàllankoor ba noppi tamit lépp luy xéewal nekk fi saali ma tey nii raani ma tey nii loolu la wax daal di wax ni maa ngi lay sant nag yow mi ma indi ci barab bi nga xam ne daray gàllankoor amu fi chakartuhu li annahu qad saaqani li watanin bi bihi nafa ma haaqani bi loolu amee nag ci la ko daal di tànnal aw tur tur wi mu tànnal ko tur wu ubbeeku woo xam ne xatut képp ku bëgg lu baax jullit wala sax ku du jullit ca bëgg lu baax rek war na fee mën a nekk ndax dafa fas yéene lépp lu yàq jikko ak lépp lu yàq pas-pas war fee mën a bañ a nekk mu tudde ko aljana tuuba tuuba di tur ci turi aljana yi loolu it doon lu ama am solo doon ab joxañ boo xam ne ku tedd ki da ko joxañ euh, taalibe yi nekkoon ci ginnaawam ak mbooleem jullit ñëpp xamal leen ni lii fii ñëpp fi xaj barabu ñëpp la képp koo xam ne aljana ñor na ko rek war na fee mën a nekk di tegtale soreenu gisiinam ci àdduna kawe yitteem ci àdduna mënoon na ko tudde Makka mënoon na ko tudde a Munawwara mënoon na ko tudde yeneeni tur gis nañ ko fii ci senegal bari na fi lool Makka am na fi turandoo Madinatul Munawwara am na fi turandoo Arafat am na fi turandoo Jidda am na fi turandoo yu baree bari waaye moom tur yi yëpp joxu ko ci benn ñooñu tudde loolu sañ nañ ko bu baax a baax te lu am solo la waaye moom daf ko tudde aljana aljana bi nga xamante ne mooy yittey bépp jullit muy lu ama am solo boo xamante ni daray farfarloo du ci am ndax askanalewu ko boppam askanalewu ko tamit ay maamam ak ay baayam yitte jooju nag moo tax it sax euh, mu tegal ko programme boo xamante ni ci ñaan la ko ci do ci ci tëraliinu ñaan la ko tëralee muy xasida matlabul fawzayni lépp lu mat a ñaan ci ay détails ci frépance ñaan na ko ci waaye bi nga xamante ne doy na sëkk bu ca yamoon mu doy sëkk mooy fi mu wax waj wajal ilahi maskani tuuba abad mislismiha bi jaahi xayri man abad nga def Touba mu mel ne turandoom aljana aljana nag mooy mooy daj dëpp gi lépp luy xéewal lépp luy kaaraange lépp luy mucc yëpp boo xase ba dem aljana rek fitna jeex na jàmm rek moo fay moo fay am kon loolu ku mel noonu noonu la loolu la euh, euh, kéewoon Touba Touba nag am wàccuwaay bu mag a mag ci moom ndax da ko bëggoon bëgg gi euh, yi ko waral bari na bokk na ci ni sunu borom moo ko ko tànnal bokk na ci ni yéene jim amoon ngir taxawal sanc Touba mooy jaamu yàlla ak wéetal kook yar ak jàngale rek daray àdduna taxut bokk na ci mooy Touba ci boppam moo ko bëggal boppam moo ko tànnal boppam loolu it sëñ Modou Khary Bousso moo ko nettali ma jële ko ci sunu benn doomu bàjjan alxaaji Fallou Bousso Cerno nee na moo toog sëñ Modou Khary Bousso nettali ko ko ni ko ci sëñ Touba la ko jële nee na Touba dañ koo tànnloo eh, kilifa eh, ki labraar yi sax la wax nee na moom la jëfandikoo mooy nit ñu baax ñépp dañ doon wër Touba bëgg ko yàlla tànnloo Touba ci biir nit ñu baax ñooñu kenn moom mu tànn sëriñ Touba. nee na kon moom Touba da ko bëgg mu bëgg Touba moo tax amu ci woon sago mbëggeel googu dana feeñ bu skanamee ci ci ci ci ci ci ci biir waxtaan wi kon noonu la ko sañcee dafa am projet daal projet naal bu projet de société boo xam ne moom la bëgg a jëmmal ca faw mu am barab boo xam ne moom la yilif mu sanc dëkk bi tàmbali di ko fi doxal ca tàmbali bi rek la ko ta daal di tàmbalee nos euh, tëral ay barabu jàngukaay yi moo ci jiitu ndax àdduna lu ci sotti lu baax lu nekk xam-xam moo ko lal mu tëral barabu jàngukaay yi ñi toll ci jàng euh, alquran mu wutal leen seen daaree bopp ñi tollu ci jàng xam-xam mu wutal leen seen jàng daaree bopp ñi toll ci e, tarbiyewu xëy na weesu nañ toog di jàng nii waaye nag mën nañoo jàng ci beneen anam muy daaree tarbiyewu mu wut ko daal di koy nos tàmbalee bëgg yaatal e, Touba ndax booba kër gi mi ngi nekk fii ci jumaa ji nekk fii barabam bu sell bi foofu la kër gi nekkoon ñu daa ko wax Touba waaye mu koy yàkkale ndànk-ndànk di taxawal di sanc yeneen barab ci biir yoo xam ne léegi jamono ji ñu toll ay quartier lañ fi bokk na ci daarul Quddus bokk na ci daarul Minan bokk na ci daarul Rahman ak yu mel noonu yooyu ay barab la yoo xamante ni tur wi ba léegi mu ngi fi kon moom lim sañc lépp muy Tuubaa gi muy quartier yi mu def ci biir yëpp da ko askanale boroomam kon loolu it ab joxañ la bu ama am solo wane ni léppam lépp lu muy wut ci yàlla la koy wute lépp lu mu am tamit da koy delloo ci yàlla Touba mu bëgg lool Touba nag waaye bëgg gi euh, feeñ feeñ na ci ay jëfam ak i waxam xam nga nit moom lu mu bëgg rek dafay feeñ ci aw nekkiinam ak i waxiinam rawatina nag yàlla da koo nattu Touba gi li mu koy bëgg-bëgg defu fii lu du juróom-ñaari at dundam gépp juróom-ñaari at la fi def bi mu ko sancee daal nekk na fi lu toll ak juróom-ñaari at nit ñi tàmbalee bari mu tàmbalee xat liggéey bi mel ni bu ko bu ci jógut dana sooxeewu mu door a jóg dem sancee di mbàkki baari la ca topp xam nañ ko ci la tubaab bi daal di e, joteeg moom ma fàttali foofu ni bi mu sancee Touba ca déwén sa rek wala sax ci at mi mu ko sancee ndax mi nga aji ci rek ci at mi ndax am na ñoo xam ne nañ Touba mi ngi ko sanc 1888 am na ñoo xam dañ ne 1889 waaye su fekkee ne dañoo jàpp ni 1888 la dañuy wax ni ca déwén sa la tubaab bi yëg ni la tubaab bi commencé di ko surveiller di ko bàyyi xel bu fekkee ne dañoo jàpp ni 1889 la kon ci at mi mu ko sànce rek la ko tubaab bi tàmbalee bàyyi xel xam ne mi ngi Tuubaa loolu it dafa am bataaxel boo xamante ni archive nationale ci mbind tubaab yi la ci la nekk nekk ci Omar Ba doon ku ràññee ko woon ci dajale yu mel noonu bind téere boobu mag tudde ko Cheikh ah, tudde ko Ahmadou Bamba face aux autorités coloniales de 1889 à 1927 kon 1889 day mel ne kon mooy année bi ñu sañca Touba téere bu téere bu yaatu la bu ama ama am solo da cee bokk lim ciy wax ni weeru mars 19 1889 gis nañ gis nañ ab bataaxal boo xam ne tubaab bi moo ko bind wane ni am na barab bu ñuy wax mbafar ci tu ci mooy mooy tubaab gii rek maarabu bi ñuy wax kilifa gi ñuy wax Ahmadou Bamba ma nga fa sanc na fa kër ca ma nga fay tàmbalee di dajale nit ñi bi tubaab bi yoree jotee xibaar boobu ci weeru mars nag la la la boobu lañ ko lañ lañ ko bind tubaab bi daal di joxe ndigal daan nañ nañ xool ndax loolu wér na wala déet su fekkee ne wér na Amadou Bamba mi ngi ci àll boobu ci àll boobu mi ngi diggante Bawol diggante Kajoor ak diggante Jolof bu fekkee ne loolu wér na ni ma nga fa te sanc na fa kër ca ma ngi fay commencé dajale nit ñi nañ ko daal di teg bët te saas nañ ko surveiller ci secret nag ci secret mu bañ a jur fitna ndànk ci suuf di ko bàyyi xel ndax leer na ni dafa bëgg dajale nit ñi ndànk-ndànk di leen commencé di leen euh, dajaleeki di yar ak di def ay liggéeyam yooyu muy def kon nga gis ne kon ca ca saase rek la ko tubaab bi commencé di ko surveiller di ko bàyyi xel daal di koy jottalante ci seen biir ñu commencé di ko kii daal di fay yónni ay ndaw euh, renseignements généraux yi nit ñi commencé di ñëw di ko bàyyi xel euh, Touba tubaab bi di am ñu koy jottali ay xibaar waaye nag booba ñagas-ñagas yi eggagut fenn fi dañ koy surveiller ndànk-ndànk rek di ko bàyyi xel ndànk-ndànk euh, noonu la fi nekkee di yar nit ñi di di jàngale di commencer organiser dëkk bi ba juróom-ñaari at yi la affaire yi commencé ñàng nag yàqkat yeeg nangam Touba commencé xumb nit ñi fu waay bàbbee ci biir réew mi jëm si Touba ak yu mel noonu affaire bi nag commencé ëppi loxo tubaab bi jàpp ni dafay nekk di waajal xare boo xamante ni ñi ko jiitu woon doon nañ ko def xare ci wàllu ngànnaay euh, surveillance bi commencé tar léegi nag sëriñ bi moom ci wàllu yar ak jàngaleen gis na ni xumbaay bi mi ngi commencé di yàq di di di nar a liggéey bi mu jóge fi dem Mbacke Baare dafaa dem rek Mbacke Baare ay weer la fa am rek ay weer ay juróom weer juróom benn weer yu néew matut at sax ñu jàpp waaye jàpp googu nag am na yeneen sabab yoo xamante ni Euh, bu baatin la ak sababu saayir si euh, yooyu xëy na duñ fi taxaw lu bari waaye euh, sëñ Abdou Lahad Mbacké nekkoon fi ñetteelu xalifa bu Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhuma wax na ci benn waxtaan wane ni sëriñ bu mag bi dafa gis ci jàkkee Daaru Xuddoos ji ci weeru koor wi weeru koor wu mujj bi mu defee woon Touba laataa muy dem Mbacké Bari gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ànd ak saxaaba yi waa ahlu Badr ci kiiraay gu gu xaw a yaraax mu di leen di séen xemme ma bokk ci ñoom mu sàkk ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu boole ko ci ñoom mu am darajay ñooñu euh, yonente bi wax ko charte wane ne ko bu dee ci jamono jamono ja weesu na bu dee ci barab barab booba euh, du fii ak yeneen ak yeneen waaye nag ci charte rek mën naa nekk nag ci kaw ñu dabaatal ko ci kaw danañ la teg natt yoo xamante natt yu tara tara tara tar la ñu baree bari ci nit yàlla yi attanuñ ko nanguwuñ nga jàmbat te doo dellu ginnaaw te boo delloo ginnaaw doo yem ci ñàkk li nga doon wut waaye danañ la alag teg ci sëriñ bi daal di koy tontu ni ko su fekkee ne sama bakkan attan na ko sama jom moom mate na ko noonu la ko Cheikh Abdou Lahad Mbacké daal di koy waxee mu mel ne dafa daal di signé contrat bi ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonente bi xamal ko ne ko dëkk bi nag Euh, euh, yu bari yooyu mënu fee am natt yoo xam ne am na natt yoo ne mënee sulu ko fee teg loolu bokk na ci sabab bi baatin yi nga xamante ni bokk na ci yi ko génne ci dëkk bi ak sabab yeneen ay sababu saayir yoo xam ne xëy na waxtu yu mayewut ñu di ci taxaw kon génn na daal di dem tubaab bi tamit mu ngi koy commencé surveiller ñu junj foofu ne sëriñ bi dafa amoon euh, gis yinam ci doxiinu diine ak àdduna waaye tubaab bi tamit am projet boppam moom boo xamante ne dafa mel ne munta ànd ak bu sëriñ bi euh, ca jàpp na ni sëriñ bi da koy yàqal ndax dund na ay fitna moom tubaab bi ci ay xeex yu ma ci lu weesu bëggaatut loolu di ko dalaat mu képp kum gis ngay dajale mbooloo mu teel laa bàyyi xel bu ñaawee njort bu mu ëpp mu mu dal ci sa kaw danañ ci dikkaat tubaab yi matuwaay yim jël topp sëriñ bi giir ak dundam ngir sonal ko ci loolu danañ ci dikkaat sëriñ bi wax nañ ne kon dafa daal di bëgg Touba bëgg lool bëgg koo xam ne da cee amut sago rawatina biñ ko génnee ba mu dem ba sori ay ay mbokkam sori ay taalibeem sori am réewam suufam nekk Gabon foofu bind yam fa bind euh, tuubaa da caa teew lool bu koy wax ndeysaan waxeen wu daw yaram waxeen woo xam ne ki koy wax dangay xam ne namm na ay namm na ak njabootam namm na aw askanam namu na suufam muy tudd Touba ci anam yu wuute waaye tig tënk mboolem yim cay ñaan yëpp mooy na tuuba nekk barabu jàmm barabu xéewal barabu dal barab buñ mën a jaamoo yàlla ci gàttal yooyu la fay ñaan di ñaan yàlla mu delloo si ko nu mu gën a gaawee mu dellu si ci aw askanam ci am réewam ci suufam bokk na ci yim ciy wax rekk mën nañ cee tudd fi muy ñaane ci euh, ci xaside googu mu tënkee rabbana axrijna min hadihi alqaryati zalimu ahli mu fe wax ni nawaytu huna rujaa booba mi ngi gabon yéene na maa dellu tuuba ci ndigalul sunu borom nawaytu huna rujaa li tuuba bi iznihi wa awdatuhu jismi wa awdatuhu alqalba ci ndigalul sunu borom mi nga xamante ni jox naa ko sama lépp sama yaram ak sama xol am naa yéene dellu tuuba su fekkee ne Eh, soob na ko ilaahi ilaa tuubaaya xut nii wa salliman wa jut bi imtinaanin sama waltu minit turbaa maa ngi lay ñaan nga delloo ma tuubaa ca musal ma ca defal ma fa xéewal ak dal ak jaam ak salaam ci anam yu bari ndeysaan yasir rujuuci li tuuba wax mi ni waqi ni adal wara waltu tëbli sama iskaana yàlla nag ma yombale sama dellu tuubaa ànd kaaraange ak mucc ci bépp loraange rawatina yi bàyyi ko ci doomu aadama yi ca dund ga ma fay dund na doon dund ak jàmm ak yu bare bari ilaahi ala xayral baraya muhammadin adim sarmadan azka salaatin wa sallimi ma al ali wal turan wa ruddani sarian yal ma delloo ci anam bu gaaw nu mu gën a gaawee rek moo ila tuuba wa xutni wa allimi wa ajjil xuruji min uyubi jamiiha wa xutni ila tuuba wa anha sarfil jadba wax na ko ci anam yu wute wuute ndeysaan ci anam bu yaram bu daw yaram waaye fitna yam nekkoon coono yam nekkoon yëpp tamit nag teewut mu ànd ak sagoom ànd ak dal ànd ak ngor euh, nangu dogalab yàlla nekk ci loxoy tubaab yi ba yàlla dogal mu dellu siwaat Sénégal bëgg gi mu bëggoon Touba nag tax na tamit muy soññu taalibe yi ñu dem dëkki Touba ba ñaanal njëgal képp ku dëkk Touba wala koo xam ne sax dëkku fi waaye nag mi ngi fiy ñëw te yéene ju rafet lal ak ñëwam Touba waafir li kulli man biha qad sakana walilladi laha li xayrin rakina loolu nag bi ko taalibee xamee ci moom xam ni kii dafa bëgg Touba ñoom it ci biir bëgg gi sëriñ bi bëgg Touba ci lañ bëgg Touba ñoom it ba amatuñ ci sago mu mujj di feeñ ci seeni wax ak ci seeni jëf ci seeni mbind ak yépp mën nañ ci tudd yenn yenn rek yenit yoo xamante ni yii ay sénégalais ñoo ko wax yii ay taalibey naar euh, mauritanien ñoo ko wax euh, yu baree bari bokk na ci euh, waykat bu mag boobu di Cheikh Ibrahima Diop almashari yi moom tudd na Touba ay yoon yoon ci ay wayam bokk na ci li mu wax Touba li awliya Touba is fadluha fadlu daarin zaanaha Touba texe mooy Touba gu njëkk gi ñeel na képp ku siyaare dëkk boobu ñuy tudd Touba nga xam ni mooy barab bu nit ñu baax ñi ma walaw liyaa is fadduluha faddulu rabbin faddulu daarin zanaha Touba ngëneel li mu am daal mooy ngëneelu dëkk boo xam ne taaram mooy diine ak texe ndax moom moo koy moo ci wax loolu dolli ci nii ndax dañ koo tabax sanc ko te ragal yàlla rek lal ko min ajli baanin banaaha wal asaasu laha taqwal ilaahi wa amat ardana tayba wax ci lu bare bare moom it ndeysaan ci anam yu wuute dem bay wax ñaan yàlla ni ko yéene ji sëriñ bi amoon ci ñun ak mébét yi yàlla na nga ko eggale ci yàlla na nga may tuuba mu am ngëneelul màkkatal mukarrama wa kammilan qasdahu fiina wa niyatahu jàkkata fadlan daarahu tuuba xam nga loolu kon rëy na lool ndeysaan euh, ci bëgg tuuba bi am na ku ñu wax al muxtaar muxtaar ibn boo xam ni cosaanul Kébémer la boy wu rafet moom it def na ko bokk na ci lem ci wax tuuba li tuuba wayaa tuuba li saakiniha min al muridina wal abnaai wal xadami gis nga ko ndeysaan moom it way woowu texe daal ñeel na muy tuuba gu njëkk gi ñeel na maanaam tuuba texe ñeel na ko ñeel na tamit ña dëkk moo xam ay taalibe lañ wala ay doom lañ wala sax ay surga lañ yooyu yëpp di wax yu ama am am solo euh, euh, su ko defee loolu it euh, feeñ ci mbindi kii Cheikh Ibrahima Diop Machanri moom am na fu muy waxee ni su fekkee ne am na kuy dem feneen ngir dabu fa bànneex ngir dabu fa aw wërsëg ak kum koom man Tuubaa laa jëm wala Mbàkke inir taaxa murtaaxun li moo nii yasurruhu fa inni li tuuba aw ila mbàkke raihun kon loolu lu ama am solo la boo xamante ni euh, kii feeñ na ci seeni i bind am keneen koy wax ni yow day boo dee dem demal tuuba wala daaru salaam foofa ku dem mucc ci euh, jafe jamono alaamil ila daari salaami tuuba ida xifta min ribi zamani mu ciy wax am keneen koo xam ne day wax ni maa ngi ñaan mucc fa Tuubaa bi ma dëkk ëllëg ma bokk ci nit ñi nga xamante ne dañu am texe am mujj rafet wa arju la daa Tuubaa gadan an akuna min unaasin lahum Tuubaa wa xusnu maabi daal koy waxat ci beneen anam beenaat ko boo xamante ni daf ne li tazfara min xawsi zamani bi nazratin tanaalu biha xusna maabi wa Tuubaa fii ne xusna maabi wa mu ne Tuubaa wa xusna maabi nga gis kon euh, euh, na tol ndeysaan yoo xam ne kii am kuy tagg Serigne Touba naaru gànnaar la tagg Serigne bi ba egsi ni ko yow ni egsi nga Touba nag benn fa jita ila Touba wa Touba ka jannatul afil jannatil infaaqu yusafu bil xasr yow nga Touba sa Touba gii nga xam ne taxawaayu aljana ci kaw suuf lay taxaw waaye nag aljana infaaq yañ fay def mooy dépense yañ fay def joxe yañ fay def fere yañ fay def Euh, ragal ñàkk amu fa daal ci gàttal lépp fa doy ak ñàkk duutu fa am afil jannatil infaaqu yuusafu bil xasri dan ne ku ñëw tuubaa gi sa tuubaa gi indi fi yitte yitte ji dana faju ca buy génn dana yóbbaale kaaraange ak mucc ci ñàkk ak jafe-jafe mono fa tuuba li man jaa tuuba ka taamian yaub yaub bi ma yaxmi min alfaqri wal usri kon wax nañ ci lu baree bari ci tuuba ci ay bind mu feeñ feeñ tamit ci seeni wax taalibe yi bëgg ko ci seen xol euh, ba tax ñu bari ci ñoom gàddaay seen dëkki cosaan ñëw dëkk si biir Touba ca fas yéene buñ kenn buñ wàccee liggéey ñu denc leen biir Touba. looloo tax néew na lool néew ma amut de waaye néew na lool nga gis ku ku gàddaay ñëw Touba dëkk fi wàcce fi liggéey ba noppi di dénkaane ñu koy génne di ko denc feneen fu du Touba loolu bariwut bu fekkee ne am na it man. bariwul lu ma koy gis waxuma nag ñi du taalibe waaye ñi nga xam ne ay taalibe lañ moom loolu néew na ci lool nga gis ñeneen ñoo xam ne ay taalibe lañ waaye doxeenu jamono ak euh, leenu jamono tax ñëpp mënuñoo dëkk si Touba ñoom ñi ngi dëkk feneen waaye dañuy mébét saa bu seen ruugi rotee indi leen biir loolu nag euh, day wane ne rek ñoom ñëpp taalibe yi seen xol dafa aju ci Touba yemuñ ci ñi nga xam ne sax dañoo sanc ay dëkk yu ci bare dañuy sanc ab dëkk foofu baatu Touba bi Euh, euh, boole ko ci moom nga xam ne danga nga naan Touba Fall wala Touba Ndiaye wala Touba Nangam ak yu mel noonu yemuñ ci loolu sax ba ci dëkk euh, tubaab yi ñuy nekk sax léeg-léeg da ngay gis namm gu ñuy namm Touba ak bëgg identifié wu fu ñu toll wane ni ci Touba lañ bokk ñu wax Touba Marseille ak Touba Milano ak Touba France ak Touba New York ak yu mel noonu yooyu yëpp dafay wane rek taq gi nga xamante ni xolu taalibe yi taq na ko ci Touba. ak gis giñ ci gis seen bopp loolu di lu ama am solo loo xamante ni xéewal la goo xamante ni yàlla defalu ko ñépp loolu nag dafay laaj ñu xam kon bu fekkee ne noonu la demee ñu xam Tuubaa kon war maam xam wàccuwaayam ñu jox ko ko na mu gën a mate xorma nag war ma nag bu ko wolof de wax mooy xorma rek ci ci ci ci arab te mooy lépp loo xam ne yàlla de koo digle ñu warmaal ko ak lépp lu muy tere ci ay jëf ak wax ñu moytandiku ko loolu ku ko def mooy yaa ngi warmaal diine yaa ngi warmaal waxi suñu borom euh, warma nag dana nekk ci barab dana nekk ci jëmm dana nekk ci jamono bu yàlla dee wax falaa rafasa wala fusuuqa wala jidaala fil xajj kon loolu dafay làmboog jamono ji ak jëf ak barab ndaxte barab aj màkka ci barab rek benn barab lañ ko mën a defee ci ne ko yàlla santaane waaye dafa am jamonoy boppam kon war ma jooju muy wax foofu dafa aju ci barab aju ci jamono dafa aju ci barab aju ci jamono waaye euh, looloo tax it euh, xorma yooyu tamit yàlla wax na ni lépp lu yàlla wormaal na ngeen ko wormaal loolu bu ngeen ko defee moo gën ci yéen dalika wa man yuazim xurumaati llahi fa huwa xayrun lahu inda rabbihi am nag beneen borom benn borom xam-xam bu ñu wax Sayyid Qutb muy wax ni war ma daal euh, euh, ci li yàlla diggee moo gën ci nit ki ci yëg-yëgam ndax bu fekkee ne warmaal na li yàlla warmaal dana am dalug biir am jàmmi biir am salaam moo gën it ci dundam ndax képp ku xotti war may yàlla yàlla dana ko teg fitna wala mu teg ku mbugal fii ci àdduna wala ci àlaaxira su fekkee ne nag warmaal nga li yàlla warmaal yàlla dana la musal ci dana la musal ci ay fitna ak ci mbugalam ndax dangaa wormaal lim wormaal kon bu yàlla wormaalee bu barab amee worma walla waxtu am worma walla jëmmu am worma worma jooj nañ ko delloo boroom loolu lu mat a xam la ci ci képp ku dëkk Touba. wormay Touba nag fan lay bàyyeekoo jàpp naa ne mën nañ koo laal mën nañ koo gis ci ñetti mbir bi ci njëkk mooy yéene ji yéene ji borom amoon bi muy bi muy sos Touba yéene ju sell la. yéenay wéetal yàlla ak jaamu ko ak jariñ doomu aadama yi yéene jooju nag képp ku dëkk Touba wala nga jëm si fi war nga koo def ci sa xel ndax it kër war boo fay ñëw wala nga dëkk fa war ngaa bàyyi xel la borom kër ga bëgg loolu mooy dëgg loolu mooy li yàlla loolu mooy li jaadu war nga koo rus war jox ko war ma ba boo ko munta ñàkk def tamit nga nga sori kër googa loolu benn la ci mooy yéene ju rafet ji ak sellaay ñaareel bi mooy yéene jooju dafa jox Tuuba weneen melokaan mooy da ko jox melokaanu dëkku diine diine nag muy lislaam muy muy madina islaamiya ndekam Tuuba dafa am dëkk dafa nekk dëkku diine lislaam te lislaam ci boppam dafa laaj war ma te war ma dafa feeñ dafa war a feeñ ci wax ji wax yi ak jëf yi loolu it mboolem ñi nga xam dañoo dëkk biir Tuuba donte sax duñ ay taalibe murit waaye nor ci yoon war ma jooju war nañ ko ko jox ndax jox ko ko mooy nga jox ko diine loolu it mooy cosaanul tere yi nga xamante ni mboolem ñi fi wuutu Cheikh eh, Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu tere woon nañ ko fi ci mooy lépp luy yàq pas-pas lépp luy xajamal jikk yu rafet yi dañ ko fee tere ci loolu danañ ci dikkaat bés kanamee loolu mooy ñaareel bi ñetteel bi mooy barab bi nekk ci biir Touba barabu sëriñ bu sëriñ bu mag bi muy lu ama am solo lu mat a bàyyi xel sëriñ bi moo sanc dëkk bi ba noppi tëdd fi kon képp ku dëkk da koo sanc moom ko ba noppi tëdd fi su ko defee nag kon képp ku fi ñëw dëkk fi yow da nga ko fay fekk si ndax ba mu fi ñëw fekku fi kenn moom kon da ñëw fekk si fi kon yow ay dëkkandoom nit nag ak dëkkandoom dafa war a bàyyi xel àqi dëkkandoo ca bokk na ci àq yi mooy yéene ji mu amoon ci dëkk bi yow nga sàmmal ko ko jamono bi ngay nekk Touba ak bi nga fi bi nga fiy loolu lu mat a bàyyi xel la kon ñi nekk Touba nañ xam ne dëkkandoo yi ko tedd ki lañ fii moom nag dëkkandoo la boo xamante ni euh, di ko natt ci dëkkandoo yu bari dëkkandoo bu spécial la bu xamante dafa am ak jagleel kon képp ku dëkk moom war ngaa euh, bàyyi xel loolu euh, bu du dara it war ma ji nga xamante ni Euh, war nañ ko ko war maal ak yaakaar gi nga xamante ni ay ay ay ay nit ñu ñu ñu kenn xamut seenub lim yaakaar nañ ko aj ko ci moom loolu war nañ ko ca bàyyi xel ca dëkk bi it moom ñaanoon na njëggalal sunu borom képp ku fi dëkk ak képp ku fi ñëw te lu baax yëkkati la kon lu bon bon bu dul dara it xanaa nit war naa jullit war naa bëgg bëgg e, njëggalal sunu borom ak ngërëmal sunu borom lu bon bon ci foofu nag e, sëriñ bi e, xam ngeen ni fu mu nekk fu nekk barke xéewal leer mbégte day ànd ak moom moo xam jamono bi mu nekkee ci kaw suuf di dund wala bi mu e, e, génnee àdduna lépp dara du ci soppeeku ndax loolu moo ko bind foofu nag dañuy junj ay ay moom ay waxi boppam yoo xamante ne moo koy wax day jëfandikoo baatu barke di jëfandikoo baatu leer di jëfandikoo baatu mbégte di jëfandikoo baatu may sunu borom mooy ay madat ak taw tawsien wax na ko ci anam yu bare bare bare yoo xamante ni daf ne ba faw ba aljana du dog ak fu mën nekk baarakan baarakan naafiu fi ixtiraabi wa ajzal al jazaa fi turaabi yàlla barkeelal na ma sama tumranke sama tukki ba ma nekkoon waaye tamit fay gi tamit fay na ma fay gu doy sëkk fii ci sama suuf si yaquudu lii bila intihaain adada man kaana lii wali yu diimul madada wali yu kon ak mayam ak xeewalam ba faaw day sax ci man barakati barakatun laa tanxarim tawsiati ka madadi laa yansarim barke bi ma yàlla defal barke la boo xam du jeex mukk xeewal yi du dog mukk yu bare bare barakatul maahi alayya nushirat wa nawwarat kulliyati wa basharat barakatul maahi mooy barke bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam yàlla wes yàlla tasaar wàcce na ko ci sama kaw leeral sama lépp ba noppi bégal ma barakati xaalidatun ilal jinaan sama barke dafay sax ba aljana xam nga yu mel noonu wax yu bare bare yoo xamante ni barakati fii abadin la tansarim wa kullu man naha madarrati xorim sama barke dafay sax ba faw ca képp kuy jéem a sax nëxal barke boobu wala xéewal yooyu wala mu may jéem a yàlla dana ko sànk dana ko xañ jàmm dana ko xañ xéewal dana ko xañ kii mu mel ne loolu nag yooyu muy tudd yooyu yëpp da koo donoo ci yónne da koo donnoo ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam te yooyu it ci yonente bi alayhi salaatu salaam du dog mukk moom it loolu wax na ko barakatul muxtaari laysa tanxarim wa nuuruhu saataau laysa yansarim barakatul muxtaar yi tan mu abada dafay sax ba faaw di dollee ko fu mu toll biha hada bi rabbihi man abada wax na ko ci anam yu bari kon yoo xamante ni kii léegi nag nit mën naa def ci xelam ni loolu xëy na ba muy dund la kon bu tëddee ci kaw suuf bu génnee àdduna ndax loolu dafay wëy dafay wëy ndax nit ku baax moo demee noonu mooy tax ña doon ziyaare ba muy dund buñ ko ziyaare si fii ci barab bi la ñooña doon am ci ay xéewale ki barke mën nañ koo am fii bu fekkee ne yéene ju rafet moo ko moo ko lal loolu it euh, xam nga sëriñ bi ñaanaloon na ñi ko fekkoon ñaanaloon nañ ñi ko fekki woon sarsaara njéggalal suñ borom inna alladina ila sarsaara qad qasadu ziyaarati faaraqu daarayni aw zaara foofu sax daanaka da koo dafa wax ne ni tàggalikoo nañ ak ak bàkkaar euh, àdduna ak alaaxira léegi nag foofu Euh, dafa am sama benn euh, baay bu ndaw ku ñu wax sëñ Mourtada Niang dafa nekkoon ci kër sëñ ab Lahad yi dafa am benn bis sëñ ab Lahad woo ko ñu toog ñoom ñaar kese dadaa daa dimbale euh, suñu waajur ci wàllu tontu bataaxel yeeg ay yu mel noonu yaakaar naa du ñàkk ñi ñuy déglu am ñu ko ci xam nee na benn bi sëñ ab Lahad dafa toog moom ñoom ñaar kese ñuy waxtaan sëriñ bi ne ko sëñ Abdou Lahad ne ko waaw yéen boroom xam-xam yi yéen ñi jàng lu ngeen di déggee euh, wax boobu muy bayit bi inna ladina ila sarsara qad qasadu ziyarati faariqu daarina aw zara ñi ma ñi ñëw euh, sarsara fekk si ma te euh, ziyaare si ma rek te yàlla tax tax leen a jóg ñooñu tàqalikoo na ñoo bàkkaar àdduna ak alaaxira loolu nu ngeen koy déggee yenn ñi jàng yéen boroom xam-xam yi nee na ma wax ko ca la ma ca xam mu ne ko waaw loolu de noonu la waaye nag kaay ma dolli la ci ak leeral sëñ Abdoulahan Mbàkke daan ne ko loolu de mi ngi mel na rek soldaar bu jàmbaare lool di xeex ca front ba ca ca ba ca barabu xeexukaay ba ba ay kilifaam ràññeeku ci ak njàmbaarteem ñu takkal ko ab raaya nee na raaya bi ñu koy takkal buñ koy nettali faw ñu wax barab bañ ko ko takkalee loolu rek la waaye saa bu soldaar boobu jógee ca barab bi ñu ko ko doon takkalee tamit day ànd ak raaya boobu fu mën a jëm du tàqalikook moom kon raaya ba yëmul ci barab bi waaye day ànd ak jëmmu nee na noonu la noonu la mbir mi mel dañoo tudd Sarsara rek ndax euh, euh, may ga ak xéewal ak yu mel noonu euh, dafa aju ci barab rek mënuñ koo ñàkk tudd waaye fépp fu Serigne Touba nekk ba ci fii mu tëdd nee na loolu la ko waxee ba ci fii mu tëdd ku ko fi fekk ziyaare ko ci da nga te yàlla tax da nga am la ko la ña ko ziyaare ji woon Sarsara te yàlla tax kon loolu dafay fu mu tëdd fu nekk du yam ak fu mu tëddul xéewalam ak i barkeem ilal jinaani bi mu wax ba aljana di taxaw ba saa di taxaw loolu day ànd ak moom loolu nag bu fekkee ne taalibe bi gëm na loolu kon na yamale tëdd gii mu tëdd fii ak bu ko doon gis ci bëtam mu toog ñoo war a yem ci moom képp war ma ji mu di ko teewlu ci xelam ci li feeg mi ngi tuubaa mu di ko teewlu ci xelam fu mu toll xam ni dafa am dëkkandoo bu particulier boo xamante ne boo xam ne moom yëmut ak yeneen dëkkandoo yu ci des Euh, doon loo xamante ni tubaab bi réere ko woon tubaab bi xamoon na ni kilifa gi fu nekk mbooloo danañ ko fa fekk dëkk boobu dana dund donte tubaab bi moom du jëfandikoo ay baatu barkeek ay leer ay mbégteek ay mayeek ay yu mel noonu yooyu moom nekku ci waaye koomum àdduna ak dundaayu dëkk bi la doon xalaat moo tax euh, tubaab bi moom dafa façon yéene bu sëriñ bi génnee àdduna ñu denc ko njaareem xam ngeen ne sëriñ bi njaareem la génne àdduna waaye bokkoon na ci bëgg-bëgg tubaab bi mooy bu génnee àdduna ñu bañ koo indi Touba waaye ñu denc ko foofa ci njaareem ngir que ni buñ ko buñ ko indee tuuba Touba dana dund te tubaab bi bëggutoon Touba dund ndax e, barab biñ ko denc dana nekk barabu ziyaara boo xamante ni duuti wéetate bu mukk te ñu bari danañ tox ñëw tuuba dëkk si fi su ko defee Touba day suqaliku Touba day dund ca bu bu boobaa njaareem gi mu won ginnaaw it ca nekkoon fa fukkaat ak juróom bi mu génnee àddina ñu jëlee ko fa boobaa bu yeexee njaareem lu bari la ko daa dikkal ci ay koom ndax nit ñi fa daa ñëw ak mbooloo maag yu mel noonu yooyu yëpp boo yeexee dana dog wala mu wàññeeku bu baax a baax mu amoon yéene ñu denc ko foofa moom tubaab bi waaye dafa fekk sëriñ bi euh, santaane saa bu wàccee liggéey nañ ko indi tuubaa sëriñ bi tamit xamoon na loolu fu mu tëdd barke dafay am leer dafay am jàmm ak salaam dafay am waaye nag dëkk bi tamit dana dund ci wàllu doxinu àdduna nii rek euh, ba tax bi mu génnee àdduna euh, tubaab bi ngir ak dal am dafa joxe autorisation ndigal ni nañ ko yóbbu Touba denc ko fa waaye ci biir yóbbu googu dafa mel ne dafa mel ne euh, da caa laxas lu mel ne ñaari sart daal waxu ko noonu waaye da ko da ko nuur da ko wax am na yenn sax da ko wax mooy ne bi ci njëkk mooy ne euh, buñ ko yóbboo Tuubaa nañ ko fa denc waaye buñ demee ba mbir yi dal yëpp dal ba mbir yi tegewaat ci yoon daañ ko delloo siwaat ko delloo siwaat euh, njaareem denc ko fi loolu tubaab bi amoon na yéene ju noonu yàlla dogalu ko far te alhamdulilahi rabbil alamin ñaareel bi mooy bi mu joxee ndigal ni nañ ko denc euh, comme que naka jekk da daa tere ñu ñu dëkk Tuubaa moom tubaab bi daf ne man ngeen a dem denc ko Touba provisoirement la wax mu aqatan maanaam ci ci ci ah, dencum ndéggandiku daal waaye bu ngeen demee yéen ñi koy denc mayuma kenn mu def lu ëpp benn bis muy 24 heures bu ko fa kenn def ci dogal bi mu jëloon loolu la kii nga xam ne biñ ko fi denc see 24 heures defuñ ko fi ñëpp delluwaat seen i kii dëkk bi ni sendaw wéetaat comme na meloon. xam ngeen ni biñ biñ biñ biñ jëlee sëriñ bi yóbbu ko Gabon euh, diggante boobu. dëkk bi euh, euh, gàddaay gàddaayoon nañ ko fi daal kenn dëkkatu fi woon daanaka ndax ndax tubaab bi euh, wax naa ci ginnaaw ni ci weeru mars 1889 tubaab bi jëloon na dogal ni nañ surveiller nañ teg bët sëriñ bi ndax dégg nañ ni sanc na ci àll bu ñuy wax mbaafar te mooy Touba gi boobu la ko tàmbalee surveiller léegi nag loolu dañut ba ni mu fi jógee ci la ci ci biir cadre boobu pour Touba bañ a dund ci la leen wax ni ay yëngu-yëngu bañ a am jàmm ak dal am mun leen bu ngeen demee bu ngeen ko fa dencee 24 heures mayuma ko fa kenn ngeen delluwaat yéen ñëpp kii kenn ku ne fu mu jóge woon na fa delluwaat bu fa kenn da bu fa kenn dañ ko fi biñ ko fi moo tax bi ko mag ñi indee denc si ko fi te suba ga ginnaaw suba ga euh, commandant bi jiite woon cercle euh, du Baol mooy région du Baol ñëw na fi le 23 ci weer woowu xam nga ci weeru juillet 19 la sëriñ bi génn génn àdduna le 23 bi euh, euh, tubaab bi ñëw na xool Touba xool barab bi ak yu mel noonu euh, pour xool ba xam ay nit a ngi fi dëkk wala deet waaye bi mu ñëwee mel na ni ndigal loolu mu santaane boobu def nañ ko mooy dañ koo denc kenn ku ne delluwaat sa yitte ay dajaloo amu ay yëngu-yëngu amu fi moom mi ngi doon foog ne ay yëngu dafa ay yëngu-yëngu dafay am waaye du ci boobu rek waaye naka jekk bi mu sancee Touba Euh, ci biir ci biir gàllankoor yi ak tere bi daf doon tere taalibe yi ñu dëkk Touba ak di fi dajaloo loolu it yenn buur yi buur yi biir réew mi euh, di dab ngërëmul tubaab bi ba tax ñoom ñuy tere euh, taalibe yi ñuy ñëw Touba ñu di leen xatal bokk na ci ki ci gënoon fës ki ñuy wax Teeñ Tanoor te moo yilifoon Bawol ci jamono yooyu jamono yi sëriñ bi nekkee Touba kooku moom dafa ràññeeku woon ci bunduxatal xatal bundu xatal yo bundu xatal taalibe yi ak di leen xorñooñal ak di jël seen alal euh, ci biir loolu waaye nag ak mujjam xam ngeen ni xam ngeen fi mujj waaye sëriñ Moussa Ka euh, junj na lu mel noonu sax ci wax loolu teeñ tanoor boobu moo dajale woon euh, magi bi yenn yi ca làmbaay di leen xoqtal di wan di leen wan jaasi wan ni leen bu buggeen bu ngeen bàyyiwut di dem Touba di ak seen sëriñ boobu yéen ñëpp danaa leen faat Euh, sëñ Moussa ko way na ko wax lu bare bari Cheikh Babacar Cargaan Cargaan euh, euh, nu mu ko tuddati sax Cheikh Babacar Cargaan Mor Maane Serigne Ali Diouf Lambaay ñi keroog da leen a woo fa péncam leen danaa leen tàqaleeg ay laxasaay maanaam seen laxasaay yeeg seen affaire tarbiya bi dana jeex mbaa yéen ñëpp dana leen sànq daaj ca teg ni sëriñ Mamar maanee ko tontu booba ni ko dangay ngay danañ dem Touba kon maanaam daf ne leen woon Touba bëgguma faa gis kenn moom teeñ tanoor euh, léegi nag daaj eh, sëñ Mamar Maane moo ko waxaat ni ko folli la tey tekki sa ndomb ak tànk moo gën a yomb lii nga wax ñoo lànk kon tere gi ñuy tere pour ñu dem bañ a dem Touba duñ ko def ca ca wàcce wàcce la ci sa nguur gi moo gën a yomb nga yow nga nga teeñoo dem Touba kon nga gis ni magi taalibe yi euh, ak euh, buur yenn yi buur yi dañ doon dabu ngërëmul tubaab bi di tere taalibe yi euh, yenn buur yi rawatina ki yilifoon kii pour ñu ñëw Touba. ci biir loolu sax waa xamoon ni teeñ ba teeñ day day dafa bañ taalibe yi pour ñu ñëw Touba tax na doomi réewam yi ñim yilifoon kuñ xam ne murit nga boo boo boo dee dox ci kii sax doota amati kaaraange dañ lay dab dañ lay sànni ay kàddu di la doyadal ñii di la dóor ñii di jël sa alal ba Serigne bu sa bindoon na ci ab bataaxel bind tentanoor ab bataaxel di ko ci artu booba sëriñ bi dese na koo yëg ndax jàmbat yi eggut ci moom waaye Serigne Mbacke sa bokk na ci li wax tentanoor ne ko lii ma lay digal sa sa njariñ la lépp lu ma la tere loraanga la lay la lay indil soo ko defee nanga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba waliyu nitu yàlla bu mag la nitu yàlla nag moroomu nitu yàlla moo koy xam nanga nga moytandiku bu baax a baax ku mën a muñ la nag waaye lii ngay def bu ko yëgee boo yeexee du baax ci yow ndax sa nit ñi kuñ dajal ca muy taalibe buñ ko xamee dañ koy doyadal ci ay kàddu di ko dóor di jël alalam ca loolu du dëgg du yoon ca na xam ne nag am réew manees na koo jiite donte gëmoo yàlla waaye boo maandoo jàmm mën na fa am akuk dal akuk yokkute waaye nag am réew du yokku du am jàmm mukk donte ki ko ki ko yor dafa gëm yàlla sax li feeg maanduwut jàmm du fa am ak dal du fa am ak yokkute du fa am loolu mooy lan mooy ne kon am réew ki ko jiite mën naa sax bañ a gëm yàlla waaye nag bu maandoo maandu te dal mooy samp am réew mooy indi jàmm cim réew mooy indi ak dal ak ak yokkute ndax yàlla bëggul kuy tooñ kum neex nag mën ngaa gëm walla nga ñàkk a gëm waaye bu boobaa sa digg ak sa boroom la waaye digg ak nit ñi moom la du seetaan yooyu ak tooñ di fi samp ba noppi mu dale cay seetaan jàmm di am ak yokkute di am amul menn réew muy avancé même réew muy am jàmm ca maandute lalu ko su ko defee loolu la ko sëñ Mbàkke bu sa wax muy wax ju ama ama am solo joo xamante ni képp kuy jiite réew war nga koo xam sa gëm yàlla ak sa ñàkk gëm yow la soxal waaye nanga xamante ni ak maandu moom lu am solo la ci jàmmi réew ak ci yokkuteem su fekkee ne bëggal nga réew mi jàmm bëggal ko waa réew ma loolu it lu mat a lu mat a bàyyi xel la kon noonu ci la tubaab bi jële décret 1889 de commencer di surveiller euh, Touba daat ci boole nag tere ku dem Touba tere ku dem Touba Euh, loolu moom euh, ba Touba gentoon na ab diggante euh, sëriñ Moussa Ka sax yaakaar naa wax na ko ca moom ca jam xamu nu mu ko waxee ba ne ba ne taalub sëriñ bi daal di fay fa Touba kon amoon na ay jamono kenn nekku fi ndax dañoo teg bët Touba kenn nekkatu fi sëriñ bi tamit biñ koy yóbbu dafa wax sëñ maam Thierno soo mënee dëkk tuubaa ak njaboot gi nga dem dëkk fa su fekkee ne dëkk fa yombut mënoo ko it foo dëkk baax na foo mënee feneen foo gis ne mën nga faa dëkk mën nga faa dem. kon ngeen gis taxawaay yu mel noonu kon tubaab bi naka jekk bëggul Tuubaa jëm kanam bëggut mu avancé bëggut nit ñi dafa dajaloo bëggul tamit sëriñ bi amuk féex ba li mu bëgg ci taalibe yi mu mën ko caa def waaye loolu taxut sëriñ bi moom it euh, bàyyandiku dafa jël ay matuwaayam ndax ba mu sancee dëkk bi rek ci la commencé nos dëkk bi ci ni muy doxee waxoon naa sànq ni tëral na daara yi jàngukaay yi ñenn ñu ne lañu war a jàng ak fu ñu war a nekk loolu tëraloon nag ak ña ko war a def daal di koy nos tëraleen tëraleen wu rafet waaye yëmut ci loolu bi mu bi mu bi mu euh, yëmut ci loolu waaye digaloon na maam Thierno mu mu dëkk si fi ak njaboot gi su mënee nekk su mënut a nekk it mu mu mu mu seet beneen barab yëmut ci loolu it mooy ni jamono yi nga xamante ne euh, mi ngi njaareem moom sëriñ bi jabal na ay eh, ay yenn ci mag ñi eh, man mii sama maam Serigne Cheikh Diop Dagana bokkoon na ci ñi leen dem leen sama dëkk boobu Touba dundal kër googa ba noppi mag ñooñu ñu bari mu wut mu wax leen ñu sanc biir tuubaa moo tax nga gis mag ñu bari fii ci biir Touba ñu am fi ay kër ndax bëggoon naa dundal eh, bëggoon naa dundal Touba donte moom mënu fee ñëw ngir ngànt liñ xam waaye yemut ci loolu digal na lenn ci ay doomam ak yenn ci magi taalibe yi ñu gaw Touba ci wàll yu bari ñu sanc ko dande ko nangami kilomètre ay ñaar ba ñett sanc fa euh, di fa jaamu yàlla di fa bay ca bu jumaa ji eggee ñu fi julli see ajjuma ci noonu la ay ndindeeg tindoodeeg daarul kër ak ay yeneen dëkk ay kër ñaanga ay yu mel noonu yooyu yëpp ci yooyu lañ ko sance mooy euh, dañ Touba kon sëriñ bi naka jekk euh, mi ngi bàyyi xel dundu dëkk bi ak lépp lu koy lépp lu koy jëmale kanam ndegam noonu la demee nag war ma jooju comme noonu ma ko waxee euh, noonu lañ ko war a bàyyee xel léegi nag euh, ëllëgu Tuuba incha allah euh, am na ci wàll goo xamante ni baatin la waaye ci bu dee ci xeltu nii rek ci àdduna xëy na mën nañoo wax ni am na ci ay anam yoo xamante ni buñ ko bàyyee xel Tuuba aw do xëy na mën naa gën a gaaw ci yokkute waaye am na ci anam yoo xamante ni mën naa yeexal aw doxinam nattable wuñ ni ñaanuk sëriñ bi fi Tuuba moom dana ànt bu ci yàlla àndee waaye nag ñan ñoo koy àntul loolu mooy wax ji moo tax bala maa tudd eh, taxaddiyaat yi mooy défi yi mooy yi koy dëkk yi nekk ci kanamam nga xam ne faaw ñu lijjanti ko su dul loolu doxeenu Tuubaa ci yokkute dana yeex euh, damay wax yi nga xamante ni moom mën nañ koo jëfandikoo ci buñ ci sukkandikoo mën naa gën a gaawal doxub Tuubaa jëm ci kanam bokk na ci euh, euh, bokk na ci mooy tere tere gi nga xamante ne Tuubaa am na ci wàllu yoon ci wàllu doxeenu Touba doxeenu réew mi may nañ ko ci wàllu yoon ñu ñu ñu fi loo xamante ni yoonu réew mi eh, terewu ko moom ñu tere fi ay mbir yoo xamante ni yoonu réew mi mooy luwaa réew mi terewu ko eh, lu mel ne ki tux cigarette luwaay réew mi terewu ko ak yeneen ak yu baree bari eh, daje góor yi ak jigéen ñi am boîte de nuit di fecc ak di nangam yooyu ci luwaay réew mi terewu ko ak yeneen ak yeneen yu baree bari ay stade ay yeneen yooyu yëpp dañ ko tere fii ci Touba kon dafa am loi spéciale dafa am daal yoo xamante ni dogal nañ ci ngànt waa Touba loolu nag lu am solo la ndax day sàmm suñuy ndaw day tax sunuy ndaw yu bari yi leen mën a yàq di xajamal seen pas-pas mën nañ cee mucc buñ leen saytoo bu baax a baax a baax euh, ci loolu lu ama am solo la ci ndaw su dul loolu mën nañoo tàbbi ci ay ci ay ay ay kii moo tax ñi fi wuutu Serigne Touba ñëpp euh, loolu dañ ko def muy seen yitte euh, bi ci gën a euh, fees nag mooy Cheikh ab Lahad Mbacké nga xam ne ci atum mille neuf mille neuf cent quatre-vingt septembre mille neuf ci la génne ab dogal wane ni wa daal tere yim fi tere yëpp wane ni lépp laal lu wuuteeg lislaam dañ koy tere fii ci dëkk bi ànd ceeg nag. ñi nga xam ne ñooy roon fu jamono ji muy euh, autorité administrative yu région bu Diourbel wek ak réew mi yëpp ñu ànd ci booba ba léegi Touba kenn du fi tux secret ci mbedd yi xanaa ku ko fi def xanaa da ngaa làqutu ak yeneen yoo xam ne dañ ko fee tere yu baree bari ñi ko fi ñi ñëw ginnaawam ñëpp it dañoo wéyal loola Cheikh Mouhamadou Mountakha bi mu egg see moom it dafa euh, wéyal loolo ba noppi gën koo yaatal moom dogal bi mu jël ci gën gee yaatal mi ngi ko jël ci weeru cent korité 1444 muy daawaati jéeg yaakaar na muy muy déwén sa rek bi mu toogee dëppoog 24 juin 2002 2019 ci la ci la daal di génne moom it ab dogal wëyal li sëñ ab Lahad ak ñi ñëwoon ginnaawam laataa moom ñëpp wëyal loolu ba noppi yokkaat ci yeneen mbir yokkaat ci yeneen mbir kon loolu buñ ci sukkandikoo danañ am doxin woo xam ne dana aar suñuy njaboot ci yenn yàqute yi yàqute jamono yi donte nag jamono ji fu nekk nii ubbeeku na ba nga xam ne loolu yombut waaye nag lu bon bon xale bi bu koy gis na koy gis ci téléphone yi waaye du ko gis ci environnement am fi muy dund du ko fi mën a gis ba di ko fi mën a essayer su ko defee loolu lu bon bon kaaraange la loolu nag Tuubaa borom njaboot yi war nañ koo xam jàppale ci sëriñ bi sukkandiku ci ngir yar seeni njaboot ngir ëllëg ñu mën a doon nit ñu baax ñaareelu mbir mi mooy waxdatul xaq waxdatul aqida mooy ñi fi nekk ñëpp ca dëkk fi ñoo bokk luñ gëm ay jullit lañ Touba mooy dëkk bu am dayoo toll ni 100 pour cent ay jullit lañ ñoom ñëpp dëgg la ñëpp nag gëmuñu affaire suufiyanke waaye li ci ëpp te loolu beneen ndimbal la mooy niñ gëmee diine suufiyanke moo fiy dox am na ay benn benn yoo xam ne ba ti ñi nga xam ne ay benn benn yi nga xam ne sax ay ay tijaan lañ wala ay xaadiri ci dëkk ci dëkk bi euh, ngirum sufiyanke lañ gëm kon mboolem jullit ñi fi nekk ñëpp ay benn benn rek ñoo ci gëmut sufiyanke te mooy ñi ñuy tudd ay salafiste waaye loolu kon chance la ndax dëkk bu toll nii ci biir Sénégal ba noppi ñi fi nekk ñëpp nekk ay jullit ñi fi dëkk ñëpp di fi yeewoo am fikir nekk ay jullit ba noppi yëmatuñ ci loolu ñu bokk nuñ gëmee Eh, diine ji bokk nuñ koy dundee loolu ndimbal la loo xamante ni war nañ cee mën a sukkandiku ngir dal gi ak jàmm ji di wéy di am ñaareelu mbir ñetteelu mbir mi mooy ñi ci ëpp ci ñi fi dëkk ay ndaw lañ ci ëllëgum réew mooy ay ndaw ndaw yi fii buñ xoolee niñ fi war a toll ci eh, diiwaan bi eh, bu dee ci diiwaanu Mbàkke rek 62 pour cent téeméer boo jël juróom benn fukki ak ñaar ay ndaw lañ amuñ lu ëpp fanweeri at ak juróom bu dee ci région de Diourbel juróom-ñaar fukk ak benn ci téeméer boo jël amuñ lu ëpp fanweeri at ak juróom kon su askan wi askanu ndaw la loolu it mënees te sukkandiku yi lu jur lu yaakaaru la ndax yoruñ société bu màggat population bu màggat kon ay ndaw lañ yor loolu it nag paaka ñaari boor la dañ koy saytu mu jural ñu njariñ wala ñu ñàkk koo saytu mu indi ñu ay jafe-jafe euh, su ko defee euh, beneen mbir bi nga xam ne mën naa dundal Touba gaawal ab doxinam moom mooy dëkk bu am dayoo toll nii at mu nekk muy am ndajem diine lislaam boo xam ne ginnaaw màkka moo gën a rëy ci réewi jullit ñëpp muy màggale Touba gi nga xam ne ñi nga wax ni lu ëpp ñaari million jàpp ñetti million danañ fi daje at mu jot at mu jot loolu Touba rek moo ko am ci ci réewi jullit yëpp nag boo ci génnee màkkatal mukarrama màkka rek moo ko ëpp Euh, su ko defee kon loolu it meneen mbir la ci li muy jur ci ay njariñ ci rattaxal diggante yi ci yaatal liggéeyub sëriñ bi ci yeesalaat gëm-gëmu euh, nit ñi waaye tamit ci am koom li mu mën a indi ci am koom koom mi nga xam ne mënees na ko natt moom am na ay boroom xam-xam yu ci defoon ab liggéey 2017 euh, yaakaar naa bu ma juumul muy waa université Bambey liggéey bi ñu ci defoon waxoon nañ ni màggal ak Touba fani màggal gi rek dana dugal ci koomu réew mi ñaar téeméer ak juróom fukk ci ay milliards. loolu amul benn xew-xew fii ci senegal buy am at mu jot muy dugal lu toll noonu ci wàllum koom ci koomu réew mi kon loolu dëkk bi bu ci sukkandikoo jël ci li ciy wàllam saytu ko bu baax a baax mën naa suqaliku bu baax a baax a baax a baax day laaj nag ay taxawu juróomeel bi ci yi ko mën a suqali ci gaawal dox bi mooy xitma bi xitma. taalibe yi ni leen yare ci liggéeyal sa mbokkum doomu aadama sa mbokkum jullit liggéeyal sab dëkk liggéeyal sab gox te yàlla tax xidma réew yu bari dañ ko bëgg lool ca amuñ ko euh, Touba nag loolu daf ko daf koo am ba ñi nga xam ne sax dëkkuñ fi waaye dañoo gis seen bopp ci Touba bëgg ëllëg ñu denc leen fi ñooñu dañuy dugal seen loxo ci doxeenu Touba donte lañ fay dugal amaana sax ñoom duñ ci jariñu buñ xoolee kuréel yu mel ne Touba ci kanam ñi koy financé ñëpp dëkkuñ biir Touba. kon mën nañoo wax ni hôpital yi ñu fiy def ak yoon yi ñu fiy defee yooyu amaana nit mën na cee dugal alalam giirug dundam ci du ko jëfandikoo wala boog li koy jëfandikoo du bari kon loolu li koy waral mooy gëm goo gëm ni da ngaa war a liggéeyal sa gox te ñi nga xam ne bari na ci taalibe ñoo xam ne dëkkuñ fi waaye jàpp nañ ni Tuubaa seenu dëkk ci la ñuy woo kon yooyu ay mbir la yoo xamante ne buñ ci sukkandikoo euh, day day yomb lool euh, bu mujj bi Euh, waaw mooy nangu gëm gi nga xam ne taalibe yi gëm nañ ko ne ñaanuk sëriñ bi day nangu waaw du ay wax nii rek mais ñoom ñëpp taalibe yëpp dañoo gëm ne sëriñ bi lu mu ñaan day ah, day nangu loolu bu xasee ba am aw ciw askan ñu bokkandoo nuñ gëm kon la fay des mooy kenn ku ne fas yéenee euh, bokk ci ña koy sottal ndax ñaan gu nekk tamit nag dañ koy dimbale euh, kon waa Touba ak ñiy gis seen bopp ci Touba dañoo war a gën a góor góorlu ci lépp luy jëmale dëkk bi kanam te loolu gëm-gëm bi bu fi xasee ba nekk rek dafay mujj soppeeku ay jëf te loolu man na maa wax ne dëkk Sénégal yi amul beneen bu ko ci am ñëpp maasandoo taalibey murit yëpp maasandoo ni ñaanuk sëriñ bi dafay nangu kon kenn ku ne dafay jéem a def ay ay coona ngir bokk ci ña koy sottal ku yaafus yaa yaafus waaye ñaan gi dana nangu xëy na kay da nga bokk ci ña koy nangul rek te loolu euh, loolu lu ama am solo la su ko defee bu boobaa li fi nit ñi aajowoo ca amu fi nga bokk ci ñi ko fiy amal li fi am ci soxlay nit ñi tamit nga bokk ci ñi koy sàmmu bañ koo yàq loolu lu lu ama am solo la euh, am na ay yeneen waaye dama koy tëb ngir sàmmanteeg waxtu wi euh, ñëw ci euh, défi yi koy dëkk yi koy dëkk moom yu néew laa ciy tudd bari na waaye yu néew laa ciy tudd bi ci njëkk mooy bari waayu nit ñi Euh, mooy ñaareelu dëkk boo xamante ni euh, ñi fi yewoo euh, ñu bari lañ ginnaaw dakaar tuubaa moo ci ëpp loolu nag lu ama am solo la ndax màggaayu tuubaa moo gën a gaaw ni muy màgge daanaka moo gën a gaaw ci senegal gi daal ni muy màgge téeméer bu nekk la cay la muy la ci yokk par at ci ci ci ci dëkk dëkk dëkkiin wi dafa dafa bari lool lool lool lool am na ko ci bind ku ñu wax docteur Cheikh Gueye wax na ni toll fanweeri at Touba at mu jot dana yokk 15 pour cent quinze pour cent loolu amut benn dëkk daanaka ci Sénégal bu bokk noonu xëy na bu ci amee bu koy xaw a nuru tuuti ay mbuur lay doon ak ay yu mel noonu eh, ki waaye yeneen yi ci des sépp kii euh, su ko defee yooyu tamit nañ ko war nañ ko bàyyi xel euh, rawatina ñëpp doon ay ndaw loolu lu lu ama ama solo la waaye nag dafay laaj dafay laaj taxawu ndax nit ñuy yokk seeni aajo day ànd ak ñoom aajo yooyu nag buñ ko fajut dafay jur yeneen yëg-yëg ak yeneen jikko ci nit ñi rawatina ci ndaw ñi waxambaane yi looloo tax ñuy wax ni ndaw ñi boo leen saytuwut dañu mujj nekk bombe sociale maanaam xun bala ijtimaa ya la ñu mujj nekk nga xam dañu mujj mën a ek mën a kalaate wu jamono bu nekk indi fi ay musiba ci dëkk bi Euh, loolu nag xaw nañoo gis lu koy xaw a nuru ci dëkk bi gis nañ fi ay melokaan yoo xamante ni buñ delloo ay at ca ginnaaw amu fi woon loolu lu mat a saytu bu baax a baax la jéem a fajal ndaw ñi seen aajo legetu neen du nax aw bay ndaw ñi dañ leen di wutal tëralal aw doxalin di faj seen yitte yëg leen di gàttandu xew-xew yi laataa dara di xew su loolu dañu fi indi rek ay jafe-jafe te loolu ci wàllu wér yaram ci wàllu njàng ci wàllu liggéey yooyu yëpp war nañ cee taxawu ndaw yi na mu gën a mate suñ ko defut dañuy seet fuñ ruur seen bopp rek réew mi jamono yi mu toll gis ngeen euh, ndaw ñi euh, jafe-jafe yi nekk ba tax ñuy euh, dugg ci gaal yeeg di kii gis ngeen ko weer yi ay bis yi ñu toll maara detaali gis ngeen li fiy faatu loolu ëpp loolu bari na lool lool lool lool benn dëkk boo xam ne daanaka juróom benn fukk yu tegal faatondoo fa ci ak gaal ci yu mel noonu yooyu yëpp dafay wane ni sunu kilifa yi àdduna yi yor réew mi saytu bi ñu war a saw saytu ndaw ñi ba léegi des na euh, ku nag ñam waa ngi nii rek moo ko mën a moo ko mën a lijjanti waaye danañ togg reer rek daañ togg añ ak defar ndékkeeg yooyu yëpp ca gisu ko euh, du sotti da naan ko rek mi ngi nii mi ngi nii ndab laa ngi nii loolu rek moo koy lijjanti su ko defee war nañ cee gën a góorgóorlu lu baax ñaareel bi nag ci yi nga xam ne faaw ñu lijjanti ko mooy ndoxum Touba ndoxum Touba moom euh, dëkk wala dundu doomu aadama rek ndox a ko yor kon dëkk bu amul ndox euh, ci jafe-jafe euh, jafe-jafe du fa jóg ndox dafa am solo ci suñu wàllu dundiin suñu wàllu wér-gi-yaram ci suñu wàllu diini ni ki ay jullit ndox mu sell nag bu fi amul mooy ni jafe-jafe du fi du fi du fi jóg loolu nag Euh, euh, mel na ni ku tedd euh, ku tedd ki xamoon na ko ba ñaanoon ci sax nag wa maskani sallim min al fujjaari wamnun ala al ahli bi maa in jaari ñaan ko waaye ñaan gi incha allah dañ ko war a dimbale te mel na ni kilifa yi fi nekk fu nekk nii am nañ yëg-yëg boobu ba ñu ngi ciy def ay jéego man nag li ma yéem mooy sëriñ bi sëriñ Tuubaa bi muy ñaan ndox da koo lënkaleeg ay ñaawteef ñaan yàlla musal dëkk bi ci ay ñaawteef wa maskani sallim min fu fujaari wa wamnun ala al ahli bi ma in jaari te ci fan yi ñi ngi gis ay nit ñoo xamante ne dañuy sabote ndox mi ñii di tëj ay won ñii di bënn ay tiwo ñii di dagg ay tiwo ñii di eh, eh, tëj ay ragar di ko di ko di ko sakk yooyu ay mbir la yoo xam ne yëf yi yëf yu yu ñaaw la rafetut yellut ci nit ku baax yellu ci dëkk bu mel nii ci ci ci ndox ni mu amee solo ci nit ñi ba noppi nit ay nit di def loolu ci biir Touba ci loolu yaakaar naa ni ñun ñii ñëpp dégg nañ ko fan yi loolu kon dafay wane ne Serigne Touba euh, daal nitu yàlla la ndax buy ñaanam ndox ba noppi di ko lëkkeel yàlla musal dëkk bi ci ay ñaawteef defkatu ñaawteef yi kon gis nga ca ñi ngi ci fu mu nekk nii ñoo xam ne ndox mi tàmbalee lijjante ko mu mel ne ay nit ñoo xam ne loolu neexu leen ñu koy sabote loolu lu yéeme la waaye loolu moom il faut ñu warees na ko lijjanti euh, ñetteel bi mooy wàllu environnement bi xam nga nit ku nekk nit du nekk ci jaww ji dafay nekk rek ci espace lay nekk dafay nekk foo xam ne bii il faut environnement bi foofu il faut mu nekk fenn foofu mu nekk nag dafa war a mucc ayib mucc ayib ñu war koo sàmm mu mucc ci ay salte mucc ci yu bari yu gàllankoor ak dundam yooyu dañ koy war a taxaw bu baax a baax kon lépp lu aju ci wàllu environnement bi ci assainissement bi set gi ci ci ndoxum ndoxum ndox mu salte mi ndoxu taw yi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yëpp dañ ca war a but pexe ndax am na ay njaboot yu génn seeni kër saa bu nawet ñëwee am na ñoo xam ne seeni kër ay weer dong lañ cee dëkk mooy jamonoy noor bi bu nawet jub see ñu génn dem loolu lu fitna la lu metti la ci loolu war nañ koo lijjanti ñi ngi ciy jéem nag lu bari waaye xam naa du yomb ndax dëkk la boo xamante ni fi mu nekk ndox géej jegewu ko dex jegewu ko te ndox yu mel ni dëkk bu toll nii ci dayoo bi li fi jóge ci ndox ci ci jë yiñ jëfandikoo ak ndoxu taw bi loolu faw ñu wutal ko ay pexe yoo xamante ni du doon rek ay miir yu ñuy taxawal ni naan nañ ko sotti foofu loolu xalaat war naa gën a gën a yaatu foofu beneen bi may mujjee ci défi yi nga xam ne war nañ koo lijjanti mooy li nga xamante ni euh, daal ñàkk nosu ak yar bu tàmbalee sooxe ci ñi dëkk ci biir Touba euh, loolu war nañ ko xa baax a baax xam nga ni yoonu murit dafa am ñetti cëslaay ci aw doxinam mooy al ilmu naafi xam-xam bu am njariñ al amalu saalih jëf ju baax al adabul mardi teggin yu yàlla gërëm ñett yooyu taalibe bu nekk fu mu nekk war na koy bàyyiwaale xel ca jamono yii nag moom dañuy gis ne dëkk bi yar bi dafa des tàmbalee sooxe bu baax a baax te loolu kon day mel ne lenn ci keno yi nga xam ne ci li yoonu murit taxaw dafay mel ne dafay tàmbalee commencé gëll goose te loolu ñu ñëpp ñoo ci war a taxaw buñ génnee ci mbedd mi da ngay gis fu waay neex lal loolu jaaduwul ci dëkk bu nosu dëkk bu jëm fenn loolu waru faa am fu waay neex lal lu waay neex jëfandikoo ay atelier fu waay neex samp loolu ci dëkk bu mel nii loolu waru faa am euh, jëf yu ñaaw yi nga xam ne mi ngi am ci dëkk bi euh, ci yiñ ci tuddoon rek ci la jéem a xañ ab dëkkub lam ndox loolu jëf gënu koo ñaaw ci yooyu day am ci dëkk bi yu mel noonu yooyu war nañ ko seet bu baax a baax a baax yoo xamante ni Eh, eh, kii mel na ne nag kilifa gu mag gi Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na ko yàlla sàmm eh, am na yëg-yëg bu baax baax ba tax war may dëkk bi am na ñu ko teg ci seen loxo ñooñu ñu ko teg ci seen loxo ñu doon ay nit ñoo xamante ni ci cosaan liñ leen xamee mooy yar ci cosaan liñ leen xamee mooy nangoo liggéey ci cosaan li ñu leen xamee mooy dégg ndigal ci loolu lañ leen xamee kon bu ko tegee ci seen loxo yaakaar nañ ni buñ ko buñ buñ jëfee lim leen waxoon bi mu leen koy dénk ndax ñu ñëpp dégg nañ ko bi mu leen koy dénk daf ne bu leen ci réeroog ñi yor kilifteefu àdduna gi loolu la leen wax na ngeen ci ànd ak sago te bu leen ci réeroo ak ñi yor kilifteefu àdduna gi mooy police ak gendarmerie ak armée beeg ay yu mel noonu loolu buñ ko jëfee boole ko ñi dëkk ci biir Touba di ay taalibe ak ñi fi ñëw ñëpp jàpp ci liggéey bi boobaa yaakaar naa ni ñaawteef yi ñu fi gis ak yi ñu eh, doxalin wi ak ñàkk eh, yar bi mën naa wàññeeku bu baax a baax loolu nag kenn ku ne na ko def mbiru boppam buñ jàpp ne dañ koo dénk waa kuréel sàngam kon man sama yoon nekku ci déedéet il faut ñu yombal waa kuréel yombalal waa kuréel googu seenub liggéey euh, su ko defee eh, kenn ku ne ci ñun ci ay waxam ak colinam ak doxalinam ak jëfinam mu bàyyi ci xel war ma jooju ngir jëmmi sëriñ Tuubaa mi tëdd ci dëkk bi ca ñun ñu nekk ay dëkkandoom loolu war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax rawatina nag nag waa dëkk bi ñëpp ay mbokk lañ ñañ dénk saytu dëkk bi mook ñiñ war a saytu ñëpp ay mbokk lañ ñoo bokk luñ gëm ay mbokki deret tamit am ci su ko defee bu boobaa am na yoo xam ne xaju fi kon it sago si sëñ Muntaxa waxoon nañ ko ci àndal ca ba noppi ànd ceeg euh, euh, ñi nga xam ne ñoo yor leenu àdduna bi loolu sëriñ bi wax na ko loolu bu ñu ko defee danañ dimbale sëriñ bi dimbale suñu bopp ci doxeenu dëkk bi yaakaar naa yooyu ay yenn ci ay défi la rek am na yeneen yu bari yoo xamante ni tudd ma leen bokk na ci xam nga ni Touba boobu xëy na dinaa ko tudd mooy xam nga ne tuuba ci ay nit ñu fi yeewoo ginnaaw dakaar moo fi ëppale ay nit ci noonu it dëkk bi moo ëpp ñu muy gàttandu ci ay néew ci biir Sénégal amul benn dëkk Sénégal boo xamante ni lañ fay yóbbu ci ay néew par bis egg na ci li ñu indi Touba par bis loolu it dafay laaj yeneen taxawaay ci ñu saytu ko kon ni nit ñi aajowoo ñiy dund niñ aajowoo fuñ dëkk ci anam yu baax noonu la néew yi tamit di aajowoo espace ca espace yooyu yaakaar naa ni léegi mu doon fi ay jafe-jafe ndax gis ngeen armeel yu njëkk yi tëj nañ ko armeel yii fi nekk gis ngeen ni muy doxee loo xam ni réewam lëm daanaka dañ fiy indi bis bu set lim bu pour nga wutal ko espace du yomb yooyu it kilifa yi war nañ ci xalaat kon yaakaar naa yooyu yenn la ci yi nga xamante ni eh, bëggoon naa ñu weccante ci xalaat rek may tëjee rek ni tuubaa daal dafa am ay jagle yoo xamante ni ku fi nekk ku nekk war nga koo xam nga sàmmonteeg moom ku fi nekkul ca di ci gis sa bopp it eh, war nga koo xam war ngay dimbale ñi fi nekk dimbale eh, kilifa gu mag gi ngir loolu ñu mën a sàmmonteeg moom cañ gën a xiirtal ndaw ñi gën leen saytu ci wàllu yar bi gën leen a xiirtal taxawu ci wàllu njàng mi ndax njàngeet munta ñàkk cib dëkk xéewal yi am ci dëkk bi it ñu jàppee ko ay jumtuwaay ngir dund suñu diine ci anam bu rafet ngir ëllëg aljana yomb ñu te loolu la sëriñ bi bëggoon loolu la ñaanoo nit wane ni dëkk bi nang ko def mu doon dëkk boo xamante ni aljana joo xamante ni ju teew lay doon ju yóbbe aljana yi ëllëg wajaalhu rabbi minanan muajjala jaalibatan li minanin muajjala kon mbewte waru fee am euh, yëg sa bopp waru fee am xeebaate waru fee am ngir am amu àdduna kese ndax loolu ku ko def rek mooy ne xamoo sëriñ bi li mu bëggoon xamoo sëriñ bi fi mu jëmoon sëriñ bi li mu wax wajaal ilaahi maskani tuuba abad mitlasmiha bi jaaxee xeeri man abad su fekkee ne dafa nuru turandoo noonoo duutu fi am xeebante duutu fi am waaye dimbalante moo fi am nawlonte moo fi am jàppalante moo fi am te loolu buñ ko amee rek jàmm euh, ñu mën ko fay yaakaar bu baax a baax maa ngi wàcce kàddu gi di jégalu bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ bi ci waxtaan am solo yi nga xamante ni waxtaan nga ko fi mel na ni lii lañ ci yaakaaroon te bàyyi woon ko xel boo daara bi saa bu waxtu wi ñëwee rek xelam day daj ne thème bu mel nii yow rek yaa yaa lañ ci doy mel na ni niñ ko séenoo woon to sàkkoo noonu ko ci yow matal nga ko noo xamante ni kawe na njort bu baax a baax niñ ko waxee woon ci biir waxtaan wi noonu nga ko indee poñ par poñ ba li nga xamante ni moom lañ ci séen woon yépp mel na ni matal nga ko bu baax a baax ci ñeenti tomb yi nga xam ne waxoon nga ne fas yéene cee jaar benn bi nag mu aju woon ci jamono ji nga xamante ni sanc nañ dëkk bu sell bii nga xamoo di Touba nga xamante ni Serigne Touba Cheikh Ahmad ci gis-gisam ba ci li nga xam ni moo di rëy yéenam ja am na fu mu doon gis di ko wér nga xamante ni bëggul kenn moomu ko bëggul itam kenn du ko fekk di ci am beneen sañ-sañ bu bokkut ak bi nga xam moom la am moom ci boppam nga xamante ni wax nga ci ñaari euh, dat yoo xam ne njort nañ ne génnul yooyu muy benn bi di 1988 euh, ñenn ñi di laam laam itam 89 diggante boobu xëy na sorewul lool waaye bi mu koy sanc itam dafa mel ni dafa amoon yéene moomal ko boppam bañ ko bokk kenn ngir am sañ-sañu lim fi bëgg def mën ko def loolu yaakaar na seetu nañ ni bu fekkee ne dangaa dem foo xam ne ñu baree fa ne jiitu la fa nga bokk ko ay nit di am àq ñenn ñi itam dañuy am àq bu boo da am foo mën di yem ñenn ñi itam am foo xamante ne seen sañ-sañ foofu la yem bu waxee ne mën nga faa bañ a yaatu ba la nga war a liggéey nga mën ko faa liggéey loolu bi bi mu amee itam da cee da cee laltaay ay ñaan yu bëree bëri yoo xamante ni mboolem xasida yi mu def néew na ci tarjumaan ba ci mujj ga te tu tudd fa Tuuba di ñaan ci dëkk bi yàlla mel ni turam yàlla mel ni ni nga xam doon la ko bëgge ni mu yéene lim lim lim ci yéene yëpp mu ñaan ko ci ngir dëkk bi mel noonu ba mel ni sax bi nga xamante ni jot nañ koo génn dëkk bi daana ñaan ni yàlla naa fa delluwaat te fekk fa jàmm an ñi nga xamante ni ñooy waa dëkk bi loolu yi ci bu baax baax bi nga xam ne sanc na ko itam dafa mel ni projet la am programme bu bu leer ndax li ci ëpp nit mën naa dox te doxul ci programme waaye moom daa dox ci programme wax ne nii la bëggee ci wàllu tarbiya nii la bëggee ci wàllu ñi aju ci jàng ñii la bëggee ci ñi waru ñi nga xam ñoo war a xam seen borom ak anam yuñ ko mën a xam ne ñi nga xam ne toll nañ ci am na foofu mu leen bar ñi nga xamante mu mën nañoo wax ne weesu nañu am njàng am na nu mu leen ko daan jàngale loolu programme bu bu yaatu la boo xamante ni naa loolu ko bu mel ne sax am na ay dëkk yoo xamante ni wala ay gox wala ay koñ ay quartier yoo xamante ni li boo leen tuddee xel day dem ci ne foofu kat sëriñ bi lam ci sàkk woon wala lam fa bëggoon wala yéeneem ja mooy tarbiya wala jàng wala yu mel noonu yaakaar naa boo nee ndam alimul xabiir xel yëpp day daj rek ne xam-xam moom donte mën nañu si faa defal lu ne waaye xam-xamam Euh, mel na ni foofu rek la fekk baax mel na ni itam bi mu ko defee def programme boobu yëpp def projet def ya am ci yaakaar waaye mal asaf sadid juróom-ñaari at rek la fi am ci doxalin bu am solo boobu nga xamante ni moom la doon doxal ngir lan ñi nga xamante ni àddina rek moo leen ñor moo leen yitteel itam jàpp nañ ne nii nga xamante ni noonu la programme te ñu bari wuyusu ko ci programme boobu ndax ci yàlla rek la jëm tiitloo na ñooñu na ni bëgg nañ ko fexeel ay pexe jàpp nañ ñoo war a am pouvoir ñoo war a am nguur ñoo war a am i nit ñoom la war a bàyyi xel ñoo war a digle ñoo war a tere ba mel na ni ñu koy fexeel ba génn ko ci dëkk bi muy ñi nga xam ne nasaraan yi ci lañ ko yóbbu Mbàkke Baari mu am fa diir bu gàtt ci lañ ko yóbbu fi nga xamante ne moo di tukki boobu jaarale ko ci Ndar ba ni nga xam ak Dakar ba ni nga xam noonu la dem fi mu war a dem leer nga ko bu baax a baax waaye itam ci biir loolu euh, nga gis ne teewul ñaan gim ñaanoon dafa mel ni dafa nangu ndax waliw walla nit ko baax li ñu seenu ci moom ginnaaw mooy gën a euh, résir sax mooy gën a jëmm wala mooy gën a dox li nga xam moo di kanamam te loolu feeñ ci bu baax ba ci mbirum Sëñ Tuubaa nga xam ñu bëree bari ñaan googu li mu doon ñaan ci dëkk bi mel ni nangu na li mu bëggoon ci dëkk bi mel ni am na yéene jëm amoon itam mel ni sunu borom subhaanahu wa taala fay na ko bu baax a baax bu ñu bëri sax li ñu bëgg mooy ñu ñëw dëkk si Tuubaa bu ñuy dund wala sax ñenn ñi bu fekkee ne yàlla na toll ne di nga xam ne mënuñu loolu buñ li nga xamante ne mooy buñ noppee dund lañuy bëgg mooy ñu denc leen foofu nga xam moo ji Touba ñu nekk ci wetu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ngir ñaanam gu nangu googu nga xamante ni euh, euh, sunu borom nangu na ko. leer ci yu bëree bëri ci tomb bu mel noonu ci nga ñëwaat nag ci urma Touba nag bi nga xamante ni sos na ko sanc na ko dëkk fi am projet yaatal fi am ci ay yéene yoo xam ne bëgg na ko fi ay ay am ay ñaan. mel ni ñaan yooyu de daa nangu bu ñu daawee ñëw dëkk si nag dafa mel ni li li nga xam moo war ci ki nga xam moo fi dëkk si jéem a sàmmonte nag fàttaliku bàyyi xel lan moo taxoon ñu sas dëkk bii di Tuubaa lan la ci boromam bëggoon lan la ci nekke woon lan la ci doon ñaan yooyu yaakaar naa bu fekkee ne def nañ ko yii nga mujj ci say kàddu ne am na ñu ñu ko dénk bu boobaa ñoo ñëwee sax euh, laata ñuy tere loolu wala laata ñuy sàmmante loolu wala laata ñuy sàmm loolu mel na ni sunu borom subaan wa moo ko njëkk tere moo njëkk a sàmmlu yonte bi ñëw ci Sëriñ Tuubaa ñëw ci doog a dëkkam bi ngir bañ ko fi bu baax baax looy tam jot nga cee leeral lu am solo wax ko sax ab barab dañ koy war warmaal ndax mu karam bi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala euh, sànc na ko am na aay bu ci wàcc wax ne fii nag amul xuloo wala amul xeex wala amul ŋaayo wala amul bodikante wala amul leneen yu mel noonu te loolu mel na ni dëkk la boo xamante ni bu suñu borom subhanahu wa taala jox cër la niki noonu itam la ñu war a jàppee ne dëkk bii nga xamante moo di kilifa gu baax gii bépp waliyu bu suñu borom def fam dëkk mën a sañ koo wormaale loolee noonu ci nga indi ay orma yu bari sax yoo xam ne nit ki war na koo mën a sàmmante ngir e, ormal dëkk bi ngir yéene ji ci sëñ bi amoon waaye ormal dëkk bi itam ngir pas-pas bi mu amoon ngir àggale fi ab jaamu yàllaam ak képp koo xamante ni ak jaamu yàlla xaw na tey boo boo fi ñëw soppeeku bu baax a baax ormal dëkk bi itam ngir denc giñ ko fi denc nga xamante ni moom mu ngi fi donte mën nañoo wax ci zahir ne mënuñu koo gis mun mënuñoo euh, bokk ak moom jitaay waaye nag mën nañoo gis ne mu ngi fi euh, bu boobaa itam orma googu war nañ ko ko jox dëkk bi ngir euh, dëkk bi gi ak ñun ci ci ci biir ci biir dëkk bi ci biir loolu itam wax nga Touba bi nga xamee ne sëñ bi mu ngi fi ak bi nga xamee itam xëj na wane na ginnaaw am am loo xamante ni tubaab yi nga xam ñoo fi nekkoon bañoon nañ ko bi muy dund waaye rawatina nag bi nga xam ne dundatul ba ni nga xam ne denc nañ ko li ñu waxoon mooy 24 heures bu ko fa kenn am dañ delluwaat ngir lañ bañ nañ la nga xam ne moom lañ yaakaaroon te foogoon ko te njortoon ko loolu mën na fi am e, ngir ñu denc ko fi ñu koy ziar ba sax àgg nañ ci ne e, nañ ko denceegun foofu rek ba xam ba ñu xool bu xam nga xamante bu fekkente ni taalibe yi teewoon nañ xaw raj raj loo jëmbul leneen mën na caam waaye bu boo fekk na sun dogal suñu borom bi jiitu na bu baax a baax ngir tere murit ñi nañ bu ñu demati Tuubaa yooyu yëpp def nañ ko waaye téewul rek ñaan gu nangu moom bu bu ko sunu borom xese nangu rek faw la nga xam ne moo tax dina dina ko def incha allah ci nga leeral nag euh, mustaqbal Touba nga xamante ni lu lu lu xel la muy dëkk boo xamante ni mu ne suñu fee def am po moo xamante ni euh, lu lislaam nanguwul la ak xeeti po yëpp nag ak xeeti jëfandikoo yëpp nag ak xeeti colin yëpp nag muy muy góor muy jigéen loolu mel na ni ñaan gam ñaanoon wax nga ci biir ne ci liñ ñu seetlu mooy nangu na bu baax a baax nga xamante ni naam dëkk bi day sart yi terewu ko waaye ci biir Touba am na wàccuwaay bu ñu ko jox boo xamante sañ nañ koo fee donte euh, sart yi nga xam moom lañ xam ci réew mi terewu ko waaye gis nga ne euh, dëkk bi dafa am loo xamante ni yéen dëkk yu bari amuñu ko mooy bokk benn pas-pas bokk benn jubluwaay bokk benn gëm-gëm nga xam ñun ñëpp li ci ëpp tasawuf la wala képp koo xam ne ko ci itam dangaa da nga fay wàll yaani waaye dëkkoo fi loolu itam gis nañ ne bokk na ci yi nga xamante ni euh, mën nañoo seetlu ne Touba mustaqbalam mën na mën naa dara xel bu baax a baax nga gis ne itam lu mel nii nag bu amee solo ay ndaw ñoo ko mën a jëmmal ndax mag moom xëj na euh, am na fu mu toll foo xamante ni mën nañ ñoo wax ne foofu mooy tolluwaayam waaye ndaw ñi nag ñooy wéyale loole foofu nga xam ne mag ñi foofu la foofu la nga wax ne nag li ëpp ci Euh, ñi nga xam ne population tubaa mooy ay ndaw lañ mel ni sax am na benn ministre bu ko mos a wax fii ministre de l'intérieur boo xamante ni cérémonie officielle la wax ko am ñu ko ciy coow am ñu ko ci fiir xëy na yu mel noonu waaye mel leen loolu ñëwaat nga ci muy mustaqbal bu am solo boo xamante ni mën nañu rafet jot bu baax baax nga wax ni itam euh, muy muy dëkk boo xamante ni li muy dajal ci population euh, ci ci at mu ne néew na xew-xew wu mel noonu woo xamante ci àddina ci réewu jullit yi ginnaaw màkk dina ko dajal loolu itam mel na ni ñu bari nañ ci xàmmee ñu bari nañ ci déggoo ñu bari nañ ci jubboo lu bari dinañ ci feeñaale ci wàllu koom-koom ci wàllu relation ci wàllu diplomatie yu bëree bëri dina ci am yoo xamante ni mel na ni réew mi sax waxuma ne dëkk ba ci bopp waaye réew mi mën na cee gis bopp bu baax a baax loolu itam wax nga ko ci sa biir wax mu am solo lool. beneen bi ci teg itam to gën maa neex loolu mooy xidma nga xam ne ñëpp dañoo gis ne moom dëkk bi ngir ñu defar ko ku war na cee dugal loxoom nga xamante ni war nga indi ci sa xam-xam war a indi ci sa doole war a indi ci sa poos yóbbul sëriñ bi ngir mu boole ko ngir ñu mën a xidmaal dëkk bi loolu tam leer nga ko ci bu baax a beneen bi ci bi bi nga ci mujj te am solo mooy rafet njort ni ñaan gi sëriñ bi ñaanoon ci dëkk bi dina nangu am na lu ci jot nangu sax am na loo xam ne na ñun ñoo yàkkamte rek waaye jombul ci kanam tuuti mën ne sañ ko gis baax wax nga ci eh, bu baax ba ci nga ñëw nag ci taxadiyaat yi mooy def yi nga xamante ni njort nañ ni jombul mën nañoo ragal njort tuuti ci ci kii bi donte nag tuut nga ci kii xaw nga cee kii tuuti waaye yi nga ci jote a indi rek mën a sañ cee jàpp ne mooy jot na nag ñu gën a dimbale ñi nga xamante ni ñoo dëkk Touba ci ay coono yu ñuy jànkonteel yoo xamante ni xëy na jombul kilifa yi bàyyi nañ ko xel ba mel na ni kilifa gi nekk ci boppu euh, njabootu Sëriñ Touba mu ngi koy bàyyi xel ci wàllu jànguwaay ci wàllu nekkin wu sel ci wàllu nekkiinu ndox mu baax ci wàllu nekkin boo xamante ni dina mucc ayib lool loolu saa su nag waxtu ne itam yëpp mooy loolu mel na ni loolu itam leeral nga ci lu am solo loo xamante ni daanañ gis ne ñu bëri dëkk si nañ Touba naam fekk si Serigne tubaa naam wuyu ji wootab Serigne Touba naam dëkk dëkku bu jàmm la waaye am na ñoo xam ne jàppoon nañ ci ci liñ jàppoon ba ñëw mooy dëkk bi dëkku bu jàmm la dëkku yërmande la dëkku bu naataange la dëkku dëkku dimbalante la yooyu nag bu fekkente ne dañ ko bëgg a fàtte ngir am ñi am léegi ñu ngi dimbalanteeg ñaam ñi nga xamante ni itam ñu ngi ñàkk ñu ngi wéy di ñàkk di toltolaan bu boobaa xëy na jafe-jafe mën na ci bu baax a baax bokk na ci itam lu am solo foo foo dëkk fu ni rek la ngay bëgg mooy dëkk dëkkuwaay ba na am ndox moo xamante ni mënees nañ koo jëfandikoo mu doon ndox mucc ayib waaye mel na ni sëriñ bi wax na ci lu am solo loo xam ne dal na xel muy ginnaaw lii nga xam ne mooy jàngukaay bii nga xam ne moom la sumb ginnaaw la nga xam ne itam yëpp mooy ndoxum Touba bu mel na ni kooku itam mën naa dal xel bu ñu yàkkamte woon mën nañ cee rafet njotu bu baax ci anam yooyu nga xamante ni ñoom noonu lañ nekkee waaye itam ci biir ndox yooyu xëy na jombul environnement lu am solo la dëkkin bu sell dëkkin bu yaatu dëkkin bu am am ak feex loolu mel ne dëkk bi fan yii xaw na ci am ay jafe-jafe yu am solo yoo xamante ni wara sañ ko gën a bàyyi xel ci niti àddina yi wala ci ñi jiiti réew wala ci leneen ak leneen ndax am na lool compétence état la mën cee jàppale sëriñ bu baax a baax ndax li ëpp ci dëkk bi pour nga agsi ci jumaa ji fa ngay jaar mën nga ci am jafe-jafe yu yu yu yu xaw metti doog fi agsi yooyu itam wax nga ko muy jafe-jafe yoo xamante ni mel na ni dëkk bi xamewuñu ko ko woon euh, te mel na ni euh, taalibe yi naam ñu ngi dajale ndax bu fàttali ko bi sëriñ Saliou woote li nga xamoon di inondation bi wala lu ma ne assainissement bi ñu bëree bëri ku ne yàkkamte nga caa dugal sa alal xëy na am na lu ci jotaam lu am solo loo xamante ni bu doon toon loolu sax jëmbul dëkk bi mën naa gën a jaxasoo bu baax a baax leer nga ko waaye itam li gën a am solo mooy nosu nosu itam lu am solo te mel na ni ñenn ñi ñu ngi jéem di beru di aw seen yoonu bopp koo xamante la waroon moo ñu nosu tënku ci ndiggal ngir kàddu gi doon benn boo xam ne mën nañ koo mën nañ koo dénk kilifa gi ak yeneen yoo xam ne sëñ bi leer nga ko waxtaan wi am solo lool nga xam ne lii may wax na sax boo mel mën na koo gën a lëndamalaat waaye lii ma tànn leeral li liñ ci soxla woon lépp leeral nga ko faram-fàccee nga ko ni nga xam nañ ko bëggee woon mel na ni ñi koy déglu dinañ ci jëriñu bu baax a baax dinañ ci gën a bàyyi xel bu baax a baax rawatina ñi nga xam ñoo ci dëkk ñoo dëkk ci dëkk bi kon nag ñu lay jaajëfal bu baax a baax ñaan ñu yàgg koo def nga yàgg ñu fee fekk te suñu borom nangu ko ci dara ji Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmad Bamba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu